activité tey bi dañoo depuis le 7 euh, bi passé nañu tàmbali doon fi def formation secourisme polyvalent euh, am nañu ci 18 euh, participants yoo xam ne nii ay doomu caajaay yi ñoo ci ëpp am na ñoo xam ne ni itam ñi ngi jóge ba Fissel ñoo daf si ñu fii pour ñu mën a am diplôme croix rouge activité yi yi ñu fi def ñi nga xamee ne nii ne ay moniteur lañu croix rouge dafa am ñi ñuy wax ay moniteur ak ay instructeur ñoom la ñu yebal ñu ñëw fii di leen former ci secourisme. waaw xale yi formation bi ñu leen doon jox mooy formation en premier secours premier secours bi dafa am ay parties yu bëri partie bi ci njëkk dañ leen di jàngal lan mooy les principes ak les étapes booy def premier secours maanaam boo ñëwee wara a secourir nit ki lan yow ban jikko nga war a am ensuite boo ñëwee di ko dimbali si aussi fan ak fan ak fan ngay jaar pour dimbali ko bu jógee si loolu après ñu won leen nan lañ jëlee en charge les blessures donc bu ñëwee ci accident bépp xeetu gaañu gaañu boo xam te nit ki dina ko am dinañ fexe ba wan leen nan la ñuy koy identifier maanaam ñoom nan la ñuy def ba xam bii ban façon gaañu gaañu la buñ ko xamee ba pare dinañ leen jàngal aussi pour chaque gaañu gaañu nan nga war a jàppale nit ki ba nga xamante ni dinañ ko yóbbu hôpital te li ko dal du yokk wala aussi boo yeggee hôpital ba ñu faj pare du ci jëlee ay laago wala aussi mu mën a ñàkk bakkanam ndax am na yoo xamante ne ci accident suñu gaaw réagir nit ki mën naa ñàkk bakkanam sur place ñoom nag dañ leen jàngal bu fekkee fekk nañ nit ki mu nekk ci yenn situation yoo xam ne xëy na mën na cee mën a ñàkk bakkanam ñoom ñu gaaw intervenir def yenn technique de secours yi nga xamante ni mën nañoo dimbale nit ki ba bakkanam mën cee sauver troisième chose bi aussi dinañ leen jàngal un peu sur les maladies ndax xam ngeen ni Croix-Rouge dañuy intervenir ci bu feebar amee wala épidémie am dañuy intervenir sur la sensibilisation léegi foofu aussi dañ leen jàngal feebar yi nan lañ leen di xàmmee pour ñoom bu ñu mënee dem di sensibiliser nit ñi di leen yee ci nan lañ war a def pour mën a moytu feebar yooyu loolu yi daal mooy ci tënk li nga xam ne tey formé nañ ci xale yi te wóor nañu ñi tey ñoom par rapport ak formation bi liñ jot a am bu fekkee appliqué nañ ko ah dinañu dimbali population bu bëri nga xamante ni ci accident yi ñu ngi ciy jëlee ay laago wala ñuy ñàkk seen bakkan wala ñu jëndee yeneen façon loraange. di wax nag toutes les autorités bu ñu mënee localité yi ñëpp mën a def formation croix rouge bi ndax formation bi bu ngeen rapproché woo ci président bi dina leen expliquer fan ngeen di jaar te bu ñu formation bi mu baña nek rek tiajay kessé waaye bép village bu wër caajaay bépp commune bu fi nek ñu fexé ba ñom ñëpp ñu mëna def seen formation premier secours ndax xam nañ ni buñ ko défé rek ah njariñ la ci ci dëkk ci ci réew mi ndax légui dem nañ sax bo démé ci pays développé yi formation secours dañ ko bolé sax ci éducation. dama choisir Croix-Rouge parce que dama am envie ak volonté aider parce que nga gis nit ko xam dafa feebar nga assurer ko les premiers secours je pense que loolu ci jaamu yalla sax la bok. Lolo tax ma choisir bokk quoi rouge euh, bon may appeler jeunesse bi ñu ñëw euh, ci quoi rouge parce que amna na nga fekk sa morom nit mu nekk ci ay problème nekk ci ay difficulté nga aider ko je pense que lolo acte bu noble la maa ngi appeler toute la jeunesse de Thiadiaye ñu ñëw intégrer quoi rouge secourisme amener. am ci parce que léegi Croix-Rouge sax yematut ci yëkkati malaat ak tëra parce que nit ki bu amee tolof tolof euh, secourisme moo ci war a jiitu le premier secours ñuy dem euh, assister leen jàppale leen ba nga xamee ne nii ne dinañ leen mën a génne ci tolof tolof yi ñu nekk parce que dafa am noo xamee ni noonu lañu war a téye un accidenté ak koo xam ne kii mi ngi ci catastrophe yooyu yëpp euh, jàngal nañ leen ko wax leen ni ñu koy defee yëpp message bi may lancé ci jeunesse su Thiadiaye dama bëgg bi kër gu nekk am benn secouriste ba nga xamee ne nii lépp loo xamee nii lu xew la ñu mun fee la euh, mun a gaaw a takk euh, wàllu leen wàllu ki nga xamee ne nii moo am problème. Euh, matuwaay yi nag amut amut amut normalement li mu war a amee mais nag autorité yi ñu ngi ciy jàpp ku demee ni monsieur le maire mu ngi ciy jàpp bu baax édifice bi ñu nekk moo ñu ko abal ak directeur bi directeur centre bi. Euh, ndikkee jéey ak le sous-préfet moom itam mi ngi jappalé bu baax parce que lepp lo xamé ni lu xew la buñ ci démé rek mom dañuy ci amul ben problème ma ngi seen ginnaw encore ñi ngi collaborer ak ñun collaboration bu France ak médecin chef district bi. en dehors de la formation de de de la Croix-Rouge être volontaire de son pays rek dafa am jariñ parce que déjà ñun on n'a pas l'habitude de de de de de dire ñan ñun lan la ñu war defal suñu réew mais dañuy xaar lan defal mais un volontaire nekk na koo xam ne nii day defal d'abord donc ce qui veut dire que nekk élément quoi c'est quelque chose qui est très important Banen bi mooy tamit euh, boo defee loolu à la quoi il y a la possibilité de faire beaucoup de sessions de formation ay sessions ay formation diplômante yoo xam ne dina permettre ubbi lay bunt yoo dina mën jappalé jàppale ci si liggéey wala yu démé non donc vraiment li ma mën a wax daal mooy euh, organisation bo xamné nit ñëpp dañ ci wara parce que session de formation yu def en secourisme d'abord, dina la jëriñ yow sa bop dina jëriñ sa entourage dina jëriñ sa communauté dina jëriñ sa réew donc ce je veut dire que euh lu am njëriñ la et la croix même a demandé à chaque fois dans les comités que ñu fexé am dans chaque toit un secouriste au moins mais xam nga comme euh, le diplôme bi nga xam ne moom la ñuy jot joxe foofu dafa nekk diplôme international ba nga xam ne ni am na ñoo xam ñëw pour def formation bi rek am diplôme def ko seen CV dem ak moom. d' pour wax leen ne comme à Mbour en général session de formation bu ñu fa ay médecins sax dañu ñëw def si formation bi parce que dafay baax seen cursus euh, professionnel quoi. waaw message bi may lancé daal. may ñaan de yëpp nga xam ne ni ay doomu caajaay lañu koo xam ne kii ko sax caajaay. ngeen ñëw bokk si ci croix rouge parce que soxla nañu ñëpp tàllal nañu ñëpp loxo mais ñu ngi leen di gërëm itam yéen waa Jegem TV parce que yéen ay doomu caajaay ngeen bi ngeen demee jàngi mën li ngeen mën da ngeen a dellusi ci dëkk bi di ko jariñ waa dëkk bi kon nit yéen itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla na leen yàlla def ay mag yu am ñam ba li ngeen jublu yàlla defal leen ci réussite totale